ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha bu baax yéen internet Leewtoo TV da ci nuyu ku ci nekk turam ak santam ñuy topp ci réew mi ak bitim réew di am ci yéen contentement bu baax naa leen namoon naa leen lool lool lool ñaari fan yi li ma leen gisul dama ma daleen ma manqué macha allah di nuyu Mbaye Babacar ma fegoo xam naa ne namoon na ma moom su ma fayee dañ daal di ñëw jukkil leen li gën a fa ci xibaaru làmb Mbaye maa ngi leen nuyu jërëjëf Diop Diop xam nga ne namoon naa la mais booy demati dee ma takkal sagar xam nga dama lay génn maa ngi lay kontaane bu baax di kontaane suñu xarit ñuy topp ci Leewtoo TV di lay ñaanal jàmm ak salaam euh, di kontaan ci ñoom ci ànd bi ñuy ànd ak ñun ci revue de l'arène di kontaan ci ñoom waaye ka ñuy kontaan nag mooy Iluchador moom mu ñuy accompagner ci revue bi chaque jour ah moom mi ànd ak gàmbu complet boobu indi ñu vermicelle Jador macaroni Jador spaghetti Jador ñene déete waaye mu daal ci tegal ataaya Jador kenn du Ala Ndiaye nee na consommé local la doomu réew mi moo ko fi def nañ ko consommé ngeen jàpp ci ñu jàpp ci Sénégal jëm kanam mbay baaba kat ngeen jàpp ci ñu jàpp ci Sénégal jëm kanam wante tamit xam ngeen ne au Kayar mooy ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar set sell neex ba pare nag loo ci xamul fi mu toll nii waxoon naa la ko Ndeye Mbacke barki dem ne la au Kayar nag fi mu toll nii dafa commencé manqué ci dëkk bi bëgg naa nag waa au Kayar entreprise bu mag ba nekk Kayar nañu yokk seen loxo yokk stock bi ndax li ñu wàcce woon ci terrain bi fi mu toll nii sénégalais yi njëkkante nañ ko xëccoo nañ ko ba jeex na tàkk fi mu toll nii foo jaar réew mi au Kayar la ñuy waxtaanee. ndax ndox bi ñuy mooy ndox bi ñuy aar. noonu laay def sa daal di yokk sama tànk man tam yokk sama bët ne saraax ci biir journal suñu làmb ak xew-xewam la ma xëyee ci xatu mu njëkk nag ndaje ma ñëpp doon xaar diggante Siteu bu Lamsaar ci naan ko phénomène ba ak Papa Sow di ko le puma. le puma day sa seni seen ndaje ma nag dina am tey jii ca Iba Mar Diop incha allah mais entrée lay doon bay Babacar. Ndeye Mbacke Pape Abdou Fall moo taxawal boobule combat nekk combat ba nga xamante ne bii macha allah amateur yu bëri ñu ngi koy xaar di ko bàyyi xel comme ni nga ko waxee ñoom ñaar dañu bokk ci làmb mu nekk combat ba nga xam ne nag grand contre petit la ndax Papa Sow moom moom mag Siteu ci làmb Siteu nekk phénomène ba nga xamante ni bii kenn euh, mënu koo ñàkk boole ci làmb ji daf ndax ndax dafa wone li nga xam ne mooy ay preuve am ba yegg si tey ñu fas yéene jàkkaarloo fële ca stadium Iba Mar seen première face to face lay doon incha allah xam naa dinañ gis face to face bu neex face to face bu tàng jër incha allah la fa nar a amee incha allah dinañ ko topp dinañ leen ko toppal fii ci Leewtoo TV te noonu nag suñu papa Ngagne Diagne combat bay am ci diggante Gris 2 ak ki nga xam ne mooy Abdou Diouf lam cee xam ne rek mooy c'est l'avenir de Fass qui est en lu tax mu wax ko ndax kii di Abdou Diouf day jaar fa mu jaaroon Gris Bordeaux fa la dara jaar rax ji wala déet li ci kanam du raw yi gët li ci kanam du raw yi ba suñu papa Ngagne Diagne ñëw di ñu décortiquer boobu la combat Ngagne Diagne nag xam nga nekkatul ku ñuy présenté ci euh, wàllu làmb ndax xam-xamam macha allah ñu bëri dañ koy rafetlu te heure bu àddoo rek ñu bëri di ko déglu moo ñuy décortiquel komba boobu di dox ci diggante Abdou juuf ak ki nga xamante ni bii moom mooy euh, Gris 2 nee na nag Gris 2 toll nii combat bi avenir am moo ci nekk en jeu ndax ku nekk xam na ne Gris 1 euh, Abdou juuf daf ko daanoon daf koo daanoon le 24 avril deux 2000 mu nekkoon combat ba nga xamante ni bii combat bu métti woon la diggante Gris Bordeaux numéro 1 ak Abdou Diouf léegi nag ñu dem ba xele màgg mhm. xele màgg Gris Bordeaux numéro 2 ñëw bëgg di bëri ak ki nga xamante ne bii moom mooy Abdou Diouf mu nekk mu nar a nekk combat bu metti Abdou Diouf est-ce que day delloo buum ca boy boy ga wala Gris Bordeaux numéro de day jëlal revanche ki nga xamante ne bii moom mooy mag ji nee na nag Gris de moom moo war a jël ay responsabilité moo gën a nekk xele moo war a gën a bëgg combat bi ndax magam la ñu daanoon bu ñëwee dafa war a wane boppam jël ay responsabilité def différence combat bi jeex daal di ñëw na suñu dañuy xool ndax 1-1 lay doon wala 2-0 ca noonu nag ca beneen combat bañ jëm buy dox ci diggante général bu Fass samedi bii nii diggante ma qualifié li ñuy xamal ci journal mooy combat bi examen bu mag ci ki nga xam ne mooy qualifié numéro 2 Mbaye Babacar. qualifié war a def test ci ki nga xamante ne bii moom mooy général bu faas Koli nag euh, journal bi nee na ndaanaan la Sam Production moo taxawal boobu les combats. incha allah nekk combat ba nga xamante ne bii combat bu nar a neex la Coly Faye euh, mën nañu wax ne am na 11 victoire yi nga xamante ne bii daan na ci ay ndaanaan yi nga xam ne ku ci nekk buñ la tuddee ci làmb rek ndaal làmb xam na la mën nañ ci jàpp ki nga xamante ne bii mooy jëf jël Youssou Ndour ak ki nga xam ne mooy Jules Balde Junior Boy Boy Niang numéro 2 nekk fële ca école de lutte Balla Gaye wante ñi nga xamante ne bii ñoo ko daan moom am na 3 défaites ñi ko daan bokk na ci ndongoloo xaritu yaayam ak kéwél ñoom ñoo ko daan kon mën nañ jàpp ne Ndongo mën nañ jàpp ki nga xamante ne bii moom mooy général bu faar kolifay euh, Faye ndaanaan la ndax daan na ay ndaanaan wante tamit ay ndaanaan a ko daan bu war a duggu faas nag ca université ba fa nga xamante ne bii boo fa duggee rek mën nañ wax ne plafonné nga ci làmb muy euh, écrit face euh, di daje ak général général bu Fass général bu Fass toog ñetti ak bëriwul tamit war a ñëw. relancer waat war a boppam war a relancer wu war a andiwaat beneen xar kanam ci wàllu laa mm-hmm. ca noonu nag beneen choc bañ jëm beneen combat bi nga xam te ne moo dox ci digg Mambala ak Mbaye Guy gi kii di nag mu ngi def ay référence ci combat boobu loolu xam ne nag mooy cinquante 50 la ku ci nekk mën ngaa daan sa morom. mooy entraîneur écrit Jab moom Zalba yëkkati na ay kàddoom jàngat nañu combat boobu war a am ci diggante Mbaye Guy gi ak Mambala. ndax nee na mbay guy gi xale la dafa am doole mën naa bëre ba pare dafa bëgg dugg fi mu toll nii pour de grands ndax mu ngi ci dynamique ba nga xamante ni bii foofu rek la teg bëtam te ci yaakaaram amul dara lu ko war a mën a téye nee na nag Mame Balla euh, ndaanaan la mën naa bëre te am nay jamono fële nga xamante ne bii moom mooy Pikine moo fa tegoon tànk képp ku mosaat a dugg Pikine wala ngaa génn mu daan la. wante nag fi mu toll nii gëj naa bëre moom tamit war naa ñëw wanewaat boppam bu baax a baax ci digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, mbay guy gi. ca doon nag ginnaaw ba mu daanee ki nga xamante mooy Moussa Ndoye Salif Sakho fils de Double kii di assurance ba mu daane woon tam Gambien ba mu xëy na ko sampal ndënd mooy Sa Thiès Sathies da bu ñu jógee bu ci victoire ba léegi mbay dafa mel ni benn jànq bu rafet ci koñ bi. mooy ñëpp moom la ñuy xaar instant bi mooy <laughs> far wu jar xam nga mbër mbër boo jógee ci victoire la. Mm-hmm. Euh, say naataango wala ñi nga xamante ne bii ñoom nga ne ñoom nga ñoom nga sekkal làmb ji dañuy bëgg bëri ak yow. Mm-hmm. assurance moo xëy tey di ko sampal dënd moom tamit danaa ba mu daanee Gambien Sathies daan Moussa assurance nee sama diggante ak Sa Thiès fi mu toll nii dafa war a neex nag moo war a bëri parce que nee na man jàngat naa ki nga xam ne mooy Sa Thiès ni muy bëree bëri la ma nga xamante ne bii day gëdd ay adversaire am day dox ci kaw ay adversaire am wante nee na buñ ko joxee sama avance mu def ma loolu dina fi fekk mboot ma nga xam ne dinaa ko mboot ba mbootaale Balla Gaye mbootaale Buri Bàccali mbootaale waa Géejawaay eh, yëpp assurance moo wax loolu nar naa métti di waaw waaw bu yeexee sax mu moo taale waa parcelle déedéet bi ngi noonu nee na daal sama combat ak ki nga xamante ne bii moom mooy Sa Thiès combat bu neex la te incha allah maa ngi xaar promoteur yi ku ci taxaw rek man pare naa pour jëflante ak moom mais nag dëkk mbër taxul nga bëri ak moom. comme ni mu ko waxee rek ginnaaw ba ma ko Sa Thiès kii di Franc mu ngi lay dëkk. Mhm. na ko xaar. Mhm. ma ne mu ngi lay dëkk mu ne ma moom na xaar. Mhm. instant bi sama bët ca VIP yaa laa ko teg. ñu xool na fa la wane mu mujj gëtëm Sa Thiès procès adversaire am lay doon. ca noonu nag naqar ak bi daanu ci kaw ak lu làmb kii di Sa Cadior numéro 1 nag nekkat fi Mbaye Babacar. génn àdduna démb. suñu papa boobu ñu koy ñaanal suñu borom yërëm ko te jéggal ko yóbbu ko ca arjanaam ya gën a kawe nekkoon ci làmb ji doon ànd ak ki nga xamante ne bii mooy suñu papa Mor Fadam wante nekkoon garde ki nga xam ne moom mooy Moustapha Niass nekk actuel président assemblée nationale fi mu toll nii doon nekkoon na fi garde corps am suñu papa Sakho Diop ñu koy jaalee ak lu làmb yëpp di wax ne làmb moom lu ci dal kenn rek day mel ni ñëpp la dal ci suñu kàddu Leewtoo production ak Leewtoo TV yépp ñu ngi jaalee waa écurie Mor Fadam bu baax a baax te doon nag revanche bay dox ci am a neex ak nga xam te ne mooy Lac Rose ama neex nag met en garde le cobra de France dama koy xamal nag naan ko kii di Lac Rose ne verra que du feu maanaam jour boobu luy tàq rek lay gis Mbaye Babacar. nee na lépp luy tàkk wala luy tàng ci moom lay jóge gannaaw ba ko Lac Rose daanee moom ama neex bu fa yéene ñëw nag. jël si revanche am combat boobu mu ngi nekkoon le 25 juin 2012 la ko Lac Rose daanoon euh, ama neex gannaaw ba mu jógee États-Unis d'Amérique dafa li nga xamante ne bii moom mooy ay entraînement ba pare samedi bi passé la ñëw fii ci Sénégal wante moom nee na pare na ci côté yëpp ngir jàkkaarloo ak ki nga xamante ne bii moom mooy ama neex te ak ki nga xam ne moom mooy lagros te nee na ko combat boobu noonu lépp la nga xamante ne bii war na ci man def naa ko préparé naa combat bi sérieusement te lépp lu ma ci war a def incha allah bu arbitre soufflé ba wàcc loxoom génn sama diggante ak lagros dina xam ne combat bu njëkk ba ak bii du doon benn. te doon nag beneen combat bu ñu jëm di xaar na a tàng jër. bañ tuddee ko duel des techniciens bi dox ci diggante Ndongo Lo ak nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Niang Mbaye Babacar combat boobu ndax ku ci nekk yaa ngi tëkk konte ak sa morom ku ci nekk yaa ngi tëkk wonte ak sa morom Cheikh Tidiane Niang nekk champion ci bëre simple jël drapeau chef de ay yoonu yoon jël drapeau CEDEAO ay yoonu yoon bëre simple bi foo taxaw tudd ko ñu xam ko nekk mbër ma nga xamante ne bii nag macha allah ni mu toll mën nañu wax ne doole ji toll na noonu ndax ñi muy daan moo waral ñu daal di wax loolu nekk ci 5 combats arène am 5 victoire moom Cheikh Tidiane Niang déggugul muñal ci li nga xamante ne bii moom mooy arène bi war a jàkkaarloog ndongo ndongoloo ba la nekk écrit sàkku xam-xam te père Birahim jiite leen ndongoloo nag am na li nga xamante ne bii moom mooy 17 combats am 10 victoire am 10 10 am 7 défaites. Mhm. moom tamit nekk ndaanaan ci làmb fi mu toll nii nee na dafa jël komba bi ngir papaam per Birahim Ndiaye. dafa bëgg daan ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Niang jël ndam li yépp jébbal ko suñu papa Birahim. jërëjëf Fatou Cheikh Tidiane Niang ba léegi ngébbam mosul laal suuf car macha doomu jàmbur. Uh-huh. ca noonu nag journal les arènes lañ jëm comme xëy nag di Balla Gaye numéro 2 depuis la France mu ngi xëy di sànni ay kàddu comme moom fu mu nekk moom làmmiñam da ko jiital kafu ci réewu ci kami tëkku nag di Bombardier le uh-huh. b la mu koy xamal la su indee xeex mu dóor ko lam bëgg na ci combat bi dox ci ak moom mu leeral yëf yi daal di fayu leeral digganteem ak Gris Bordeaux daal di koy daan jël bu amul benn wéranteem Mbaye Babacar. Euh, wax nga ko sànq. Balla mbër la ma nga xamante ne bii day jaay combat te day neexal événement Balla Gaye macha allah marque la mu ngi noonu nekk fa la ca INSEP nag fa la yëkkatee ay kàddu euh, correspondant bi nga xamante ne bii moo nekkal waa les arènes foofu noonu moo sekk ak moom boobu waxtaan nee nag ki nga xam ne moom mooy Bombardier bu xeexeek man dina gis lu mësta gis. ci combat ndax fi mu toll nii li ma waajal ak li ma préparé ak bu Bombardier àttanu ko wante ñëw na ci combat bi nga xamante ne bii moom moo war a dox ci digganteem ak Eumeu Sène nee na li ma bëgg mooy fayu ñaari yoon yi nga xamante ne bii Eumeu Sène daan na ma ko wax na ci combat ak ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux nee na Gris Bordeaux moom 2-0 laa koy naa ko dama koy daanaat loolu la wax nee na Modou Xarañ Lo mi nga xamante ne bii moo yor ndomba tànk roi des arènes ñemewut a taxaw ci sama kanam ne moom mooy roi des arènes ba pare teg ci ne ñeenti contrat yi nga xamante ne bii moo gàllu sama ndonk yëpp incha allah ñeenti combat yëpp ñeenti victoire laa ci jëlee. ñeenti victoire la ci jëlee di ko ci ñaanal jàmm bu baax mu yegg ceeg jàmm lu ciy xew rek incha allah dinañ ko xamee noonu laay def kontaanee Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb xanaa jaajëfal ñëpp di leen kontaane bu baax a baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Leewtoo TV tey nag damay jaajëfal sama jigéen sama xarit kooku mooy Aïda Diouf Diouf ñoxo bàyyi la grande diva maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm ak salaam nee naa ko yow na moo dara am nga fulla am nga fayda am nga personnalité am nga classe bëgg na ñëpp Aida daal mën naa ne mooy bëgg ñëpp zéro faute laa koy wax naan ko juufa ñoo ko bàyyi yàlla na si jàmm yàgg macha allah amal jàmm bu baax a baax waaye balaa dash dama koy kontaane bu baax maa xeese booy di ko béggee ah naan ko amal jàmm ju bari ndax boo amee jàmm rek ñun ñëpp am jàmm bu manqué ci bureau bi sax ñun ñëpp dañu ko yëg suñu biir yëg ko aussi man sama biir bi laa <laughs> damay di béggee bu baax béggee sama équipe bi ah sama caméra bu mën damay kontaan ci moom Bilal damay bég ci yow bu baax a baax waaye Magne Pro kenn du yow sama rax bopp boo damay kontaan ci yow bu baax a baax noonu laay def jox leen dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV jaajëf ñoom ñaar jéggi ni junior wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine a ngi dóor ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw